yéenekaay yi dañ ci ànd ak Baba Ndiaye mbaa yéen a nga ca jeex na tàkk ca fini ju dug diggante taxaw Sénégal ak Pastef ay waay lii tamit mbaa jàmm la bés bi journée maire bu Ndakaaru Barthélémy Dias tëbal na Abbas Fall ci poste premier adjoint bu maire bu Ndakaaru léegi nag maire bu Ndakaaru Barthélémy Dias te lépp ngi bàyyi ko ginnaaw ndaje bi ñu amal ni ki ca maire bu Ndakaaru bés bi journée ginnaaw tuuma ñu lal ci kaw moom Barthélémy Dias Ibn Jean-Paul Dias faxasu na si ba seet wit ndaxte nee daal gars yi seen dara laa lay wax lii les économies en nga yëg nga ñàkk yëg léegi daal jeex na tàkk laa lay wax nii diggante waa Pastef ak taxu Sénégal te Abass Fall bi ñu tëbal ci bureau municipal bi daal lu ji njàkk daal loolooy njàkk doy na war yëgle kaay bi ne waa Pastef démb dañoo génn génn salle bi Mami Aw Dieng des ak Barthélémy Dia Seydou Gueye dugg ci bureau municipal bi candidaatu Pastef bi démb bi bëggoon a wuutu Abass ci poste premier adjoint bu mairie bu Ndakaaru kay waxtu wi day wóy diggante ñi dal Pastef ak Khalifa Sall ndax raag bi ñaari gaay yi dal amul tànk gannaaw déedéet yëgle kaay bi ne Marie Rose Faye mi nekkoon candidaatu Pastef ci poste première adjointe bi dañu ko wulli wulluy métti la wax ndax candidaatu taxaw Sénégal bi di Ngoné Mbengue nag moo ko duma 60 voix ci 20 voix maanaam nag seen différence def na 40 voix yëgle kaay bi ne nañu tëbale Abbas Fall ci poste premier adjoint bu maire yëgle kaay moom kay ñaaw ba noppi diggante waa yeeyu ak waa Pastef loolu tax Babacar Fall ne li am démb ci mairie bu Ndakaaru nag loolu moo firndeel ni ñoom waa yeewi ak waa taxawu Sénégal daal xajootuñu mënatuñu def de mënatuñu def de les économies waxal wax ji kay ndax waaye yeewi seen bopp ñoo dak Khalifa Sall ndaxte nee nañu nag daa war coalition yeewi askan wi Habib Sy ci Vox Populi nii ñeenti mbir yee tax ñu dàq Khalifa Sall ak gaayam ci yeewi askan wi ndaxte gaay nee nañu benn yeewi askan wi ñaar ñu dëkkay song coalition yeewi askan wi seen bopp te nag mënoo toog ci der ba noppi jëw yàpp ñett ñoom waa taxu Sénégal nag dañoo xël di bopp ak défier dëgg groupe parlementaire yeewi askan wi te lii a wéy ñeenteel bi seen lëkkaloo coalition Benno Bokk Yaakaar lii tax Babacar Seck yi gaayam ne Khalifa Sall ak waa taxaw Sénégal daal xajatuñu ak ñoom dootuñu bokk ñoom làng laas ne Babacar Abba Mbaye kay moo xëy di yebbi dëggam ci ka waa Pastef yi gannaaw nag coow lu rëy diggante waa Pastef daal ak taxaw Sénégal ndax moom député bi daal yamu ca ndaxte nee na nag song yi ci kaw Khalifa Sall nag dafa a dakk ci nii mbaa ci na suur soo ne Abba Mbaye kay daanaka wax na lépp laa lay wax ni diggante yeewi ak waa Pastef ëllëgu yeewi nee léegi nag ku leen ko timbax daal ñu mbax la ko guerre day saf mondial de le mandat nga yëg nga ñàkk yëg léegi daal ci mairie bu ndakaaru takkandeer waa Pastef fi daal kenn seelu leen fa ndax ñoom ñëpp la Barthélémy Dias daal ak i gaayam tëbal le regard ne Barthélémy Dias kay daal dogale waa Pastef ba jeex takk la lay wax ndax ci fukk juróom-ñetti conseil juróom-ñetti yëpp waa taxawu ndakaar lu l'observateur ne Ousmane Sonko génne ko ci li jol diggam lool lañu jëm diggante groupe Sénégal ak Pastef le temps ma ne bu dee waa taxu Sénégal waa Yewwi Askan Wi dàq nañu leen ndaxte nee nañu dootuñu làng ak moom Khalifa Sall ki gaayam nag léegi ñu ngay làng ci làng Benno Bokk Yaakaar lii yëgle kaay ne waa Benno koy ak waa taxu Sénégal léegi comme mburoog so Walf Quotidien taxu Sénégal kay ak waa Benno Bokk Yaakaar dañoo mel ni ñaari way bëggante yoo xam ne waxtu yi dañoo nekk ci seen lune de miel bés bi la daal ma ngay campagne ndax ma ngay samp ay cellule réew mi yëgle kaay groupe immédiat bi ne soit Amadou Ba daa xam ni mooy candidat wu njiitu réew mi Macky Sall daal muy waajal boppam ci élection présidentielle 2024 yi yëglekaay bi jox kaddu gi benn ci jegeñaale moom Amadou Ba ne Amadou Ba ci boppam yëgul mukk li xew waaye daal sampub cellule kenn mënu ko tere maire bu Grand Dakar Jean Baptiste Diouf ci enquête yéen kaay ne kenn mënu ko tere samp ndëndëm ci élection présidentielle yi daal ñu dëgmal ndaxte moom Jean Baptiste Diouf nee na tey la gën a ci élection présidentielle

beneen fa nañu téeroo buur ginnaaw ndaje wu rëy bi ñu fi amaloon Modou Gueye ak i naataangoom nag fësal nañ seen bëgg-bëgg dëgg laa lay wax ni moom président ADS sunu yitte ne ma ngay déglu njiitu réew mi Macky Sall tekk mu tànn nag nopp na ngir ànd ak moom ngir jox ko ndam lu rëy ci élection présidentielle 2024 yi Le Quotidien ginnaaw toj geeg taal gi ci réew mi rawatee nag ci bitim réew ba ci Canada ak ambassade bu Sénégal bi ñu songoon gaañee nga ci tànk ñu tojoon ambassade bi yëgle kaay ba ne ci ñoom nag ñu ngi leen di togal waxtu wi ndax ñoom ñëpp identifié nañ leen leeri nag nañu waaye seen bopp ndax police bu Ottawa daal seen tànk la nekk lii suur soi ne ñaari fukki gu nekk Pastef ak ñett yoo xam ne waxtu wi démb lañu yóbbu ci kaso bi yëglekaay bi ne gën gaa juróom-ñetti téeméeri nit ñoom ñëpp nekk ci Pastef waxtu wi ñu ngi ci kaso yi ci Sénégal ay waay li tamit mbaa càmm la Walf Fadjri ne waxtu wi kay détenu yi nga xam ne ñoo feebar kay ñoo bëri lool ci réew mi loolu nag moo indi embouteillage dëgg ci a lànk boobu ko ne du lekk ak du naan yoo xam nag lu ko dal ci kaso bi daal lu ji njaak njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram gi daal ñoo njaak ndaxte nee na saa wu lu ji njaak daal ñooma yëgle kaay bi mbëkk mi Barça mbaa Barsaak ba tey ma nga wéy ndi te sunu doomu réew maa ngi dee ci waaxi Sénégal yi ak bitim réew yëgle kaay bi ne juróomi Sénégal yoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ginnaaw benn gaal bi suux samedi gi ñu génn ca Dakhla ñu ne déet ne waaye am keneen koo xam ne dafa faatu ginnaaw bi ñetti nit yoo xam ne dañoo hospitalisé ci hôpital yi te juróom-ñetti si ñoom ñu ngi fekk fa Abdou Gueye mu yebbi dëggam ci kaw écurie Fass ginnaaw taxawaay Gris Bordeaux Lac Rose ak Gris 2 Abdou Gueye ne juróom-ñetti at ngi ñoom ñetti ñi ñëpp dàq nañ seen bopp ci écurie Fass te nag na leer ci bopp askanu Sénégal gépp ak waa ndaxte Abdou Gueye nee bu dee Lac Rose day xel di def ci écurie Fass moom ci boppam mooy tekki indombal tànkam dem abal leen écurie bi mais da ngay seet